salaamaaleykum am internet salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV dal leen ak jàmm ngi fii ci diwaanu Grand Dakar euh, di a waxtaan ak ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté au Sénégal mu nekk chef de fii ci diwaanu Grand Dakaru ñu bëgg waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu ma koy tàllal sama micro di koy bàyyi mu présenté parce que fii ci réew mi am na fi baat kilifa gi ñu ngi lay ziar. Euh, ñu ngi lay delloo ziar euh, Abdou Saliou di la sargal mais également di la bëggee. Euh, di la gërëm aussi hein pas ci li nga ñëw tàllal ñu sa micro ba ñu mën a jàkkaarloo askan gi wax ak ñoom euh, man nag moo di Fall laa tudd euh, donc nekk acteur comédien ñu bari di ma dàkkantalee turu tonton Sène à cause de la série Idole dans laquelle je joue donc le rôle de rédacteur en chef de West Info waaye itam yenn série yu mel ni Gloire Gloire aussi ma nekk ci muy daw actuellement sur la Sen TV mu nekk aussi série yi nga xam ne bokk nañu ci ñu ràññee ah ma di fa def rôle King Tabara ah Babacar Tabara mais également série Belle-Mère euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu ñuy liggéey ci Sénégal ak ci bitim réew puisque récemment bokk naa ci benn euh, feuilleton benn production française bu ñuy wax Black and White te Moussa seen ab sa réalisé ko ci jamono yi passé sax ci lañ ko génne donc ci décembre bi je crois sur FR3 voilà donc présentation bi ngi noonu en dehors du fait que je suis délégué de quartier n'est-ce Grand Dakar gii ma dëkk et maa ngi nekk délégué bu quartier Grand Dakar 4 donc euh, nekk ak askan wi waaye itam di taxawal fii nguur gi waaw ndax nee nañu délégué dafa am ñaari fonction celle d'être un administratif euh, mais aussi celle de représenter hmm, les administrés voilà donc waaw waaw loolu la. kon tonto Sène ginnaaw bi nga bi nga nuyoo présenté sa bopp euh, tonto Sène ñu gis la yaa ngi cumulé ñaari mbir maanaam nga nekk chef de quartier bëgg doon aussi nekk tamit acteur tey est-ce que loolu dina yomb en tant que chef de quartier ou bien en tant que acteur. waaw maanaam loolu euh, yomb na yombul euh, ndax nekk chef de quartier moom dëkk ak sa askan la nekk ci foofu di am koo xamante ne. Euh, da ngay nekk un régulateur social hein régulateur social ci vraiment di teew ci mbooloo mi di leen teewal également euh, di dox lépp rek loo xam ne jàmm askan gi la ak lépp lu askan gi di nga am mu soxal leen ci lu neex ak ci lu naqari mais en même temps mu doon aussi euh, taxawaayu représenté maire bi parce que les délégués de quartier sont des auxiliaires du maire au passage ma koy donc euh, def un clin d'œil à monsieur Jean-Baptiste Diouf et ses adjoints Aïssatou Fall donc euh, euh, et Aïssatou Ndiaye Astan ñoom ñëpp vraiment di leen jaajëfal ak toute l'équipe municipale donc ñooñu ma nekk seen ndaw fii ci commune bi donc nekk le maire du quartier où j'habite muy Grand Dakar donc 4A mais également nekk acteur culturel c'est-à-dire un acteur comédien professionnel mu nekk lu ma jàng euh, liggéey ci itam ab diir waaw parce que mën naa ne man bi may dugg ci euh, art bi boobu perantal la boobu mën naa ne maa ngi nekk sax en fin d'école primaire donc doon jouer ay rôle xale yu ndaw n'est-ce pas si théâtre radiophonique parce que boobu mën naa ne Sénégal amul woon télévision euh, rajo la amoon donc par rapport à la communication bon ma nekkoon ci théâtre de scène bi daan ci def bale drame mais également di def théâtre radiophonique waaw jamono boobu mën naa ne c'était vers les années soixante dix soixante onze boobu sax xale bu ndaw laa ay rôle xale rek laa daan joué ci suma wetu ñoom euh, papa ñu mel ni ñoom Abou Camara donc ñu mel ni ñoom Khartoum Dieng sous la direction de Omar Aw mu di ko ñaanal suuf sedd ci kawam parce que moom moo yoroon troupe Jubo de Grand Dakar boobu nga xam ne moo doon suma njëlbeenu Euh, activité ci biir euh, donc euh, théâtre donc ñu nekkoon ci loolu et àddina di dox di dox ba télévision noir et blanc am addina di wéy itam di dox ba télévision en couleur am ñu nekk ci maanaam jamonoy analogique ba tey ji ñu nekk ci numérique donc ñuy sant yàlla loolu yëpp bi ñu ko fekkee tey jii donc ñu ànd ak xale yi jamono yi tey jii di nekk di wéy ci liggéey boobu donc euh, di leen ci gunge ñun mën nañ ne suñu wàll du mën a sax wéy na waaye lu ci yëpp wéy na donc xale yi dañuy ànd ak ñoom di leen gunge di fexe rek ñuy euh, da nga am bénéficier ci suñu minimum d'expérience bi ñu suñu parcours may looloo waral léegi bon dans les productions euh, en dehors euh, donc de ma fonction d'acteur comédien euh, dañ may souvent donc confier fonction wu coach ah wala ma yore sax direction artistique bi waaw donc xale yi daal lu ci bëri dinañ leen jàppale ci jamono yi ñu toll ci wàllu googu. mais doon gi nga doon coach ci maanaam euh, li ngay wax euh, yore wàllu euh, maanaam jàppale xale yi pour ñu évoluer ci wàllu li nga xamante ni moo di moo di seen jeu d'acteur genre yu mel noonu est-ce que tey jotul par exemple yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci kaw ngeen may ñi nga xamante ni moo di xale yi seen chance parce que on voit au Sénégal chaque jour production yi même tête yi la ñuy gis. bon bon peut-être xëy na yow da ko gisee noonu mais man je vois que y a beaucoup beaucoup beaucoup de nouvelles têtes hein mm-hmm. même en dehors des acteurs euh, donc euh, des arts scéniques mm-hmm. je vois des des des, des animateurs yow sa compagnie gi ñu bari léegi ñu ngi ci ah et puis euh, bon aussi les les mannequins mm-hmm. man ñooñu ñëpp maa ngi liggéey ñoom ci jamono yi ku ma ci dajeel ne la yow est-ce que da nga def théâtre nga ne ma mën mannequin la wala animateur la wala chanteur la bon ba ci ba ci. Euh, donc gloire bi ñuy def n'est-ce pas euh, ONG du xam ONG xam nga ko ONG qui est rappeuse pratiquement moom moo ciy def rôle principal bi en tout cas elle fait elle est le personnage euh, central n'est-ce pas avec autour beaucoup de personnages principaux mais gis nga moom niñ ko mettre en avant hein, par rapport à la distribution des rôles et pourtant euh, c'est une euh, rappeuse euh, chanteuse professionnelle mais mais loolu euh, wàññiwul dara cinéma parce que muy cinéma di théâtre euh, benn monde la boo xam ne dafa yaatu ba pare dafa ubbeeku waaw ku nekk mën na ci dugg et ku nekk mën na ci liggéey euh, dafa di rek liggéey bi euh, lépp lu ñu la ci dénk dafay war di méngoo ak sa taxawaay ak sa mën-mën loolu rek moom moo ci am solo looloo waral ñuy def casting waaw mais nit ki moom mën nga ko jël parce que il est professionnel il a il a de l'expérience et qu'il aussi peut-être un nom dans le cinéma parce que cinéma tam dafay soxla tur ah yow tey jii boo doon def sa produit il faut nga am ay tête d'affiche yoo xam ne ñoo lay permetre bon nga am nga am nga am euh, l'attraction ou l'intérêt du public mais aussi des bailleurs ah donc looloo waral anciens yu bari ñu taamu di leen boole ci production yi parce que ñoom boole nañ ci ñoo xam ne nekk nañ ñoo xam ne euh, ci seen expérience euh, dinañu dinañu dinañu aider à améliorer le jeu de par leur expérience, mais aussi de par l'échange hein, qu'ils arrivent à faire avec les comédiens, ou en tout cas un apport qu'ils peuvent avoir auprès des réalisateurs, euh, comme des auteurs ou des metteurs en scène. donc loolu moom moo ci nekk mais man yaakaar naa ne euh, mbir mi moom euh, géej mbambulaan la quoi ñëpp xaj nañ ci. waaw waa waaw ñëpp xaj nañ fi woof sànq sa biir wax yaa ngi ni des fois da ngay tase ay mannequin yoo xamante ni peut-être dinañ yor profil euh, ñu ñu fexe leen indi ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo di acteurs yi ñu gis ay jeunes yoo xamante ni guddeeg bëccëg seen rêve yëpp mooy def cinéma ñu mu jaral leen ñu nekk di def ay atelier jour et nuit tey jooju ñooñu bu leen fi bàyyi dem jëli mannequin yi est-ce que ñoom tey duñ mujj dem euh, dem changer ji beneen métier boo xamante ni moom la ñuy def waaw effectivement loolu aussi nekk na problème parce que xam nga métier bu ne euh, balaa nga koy dénk kenn da nga koy dénk ki ko xam ki ko mën parce que kooku moom moo ko moom hein mais nag xam nga cinéma comme c'est un métier qui enfin c'est c'est une activité très indépendante euh, boo xam ne bon ñi nga xam ne dañuy def casting souvent dañuy cibler euh, par rapport ak profil bi euh, par rapport ak disposition yi et pour beaucoup de raisons hein parfois même de raisons commerciales hein des fois nga jël nit ku siiw parce que da nga naan kii buñ ko ci gisee boo danañ ko ràññee et puis dina am benn attractivité n'est-ce pas boo xam ne donc euh, dinañ ko am ci public bi donc pour beaucoup de paramètres mais nag ci loolu yëpp ñi ñu war a gën a euh, jëmmal ñi ñu war a gën a boole ci liggéey bi dénk leen ko mooy ñi nga xam ne jàng nañu ko xam nga ku mel ni man bon moi en dehors de de mon expérience hein euh, donc de de d'un peu plus d'une quarantaine d'années dans ce métier def naa école des arts j'ai j'ai j'ai pu bénéficier comme de rares Sénégalais d'ailleurs donc de la formation académique à l'école nationale des arts hein, une formation de cinq ans, euh, c'est-à-dire une année d'observation suivie donc de quatre années pleines de formation. Euh, donc xam nga yooyu dafa baax aussi boo bëggee dugg ci métier eh, nga jàng ko nga fexe yow même boo ci amul lijaasa sax nga am ci expérience loolu tam dafa am solo parce que léeg-léeg nga xool euh, nit muy interpréter nga xam ne kii euh, dëggu gi des na wala kii euh, taxawaay bi des na wala kii waxin bi des na wala kii aussi jeu bi des na loolu yëpp lu koy waral mooy ñàkk man sa métier kon man ñi ci bëgg a dugg euh, li ma leen di digal mooy ñu jàng ko d'abord voilà euh, ñoo xam ci yan anam lañ koy jàngee sur le plan théorique ou sur le plan pratique mais lépp loo bëgg a doon taalibeem daal euh, du moins loo bëgg a doon sëriñ da ngay doon taalibeem ba pare loolu am mais est-ce que erreur boobu tamit du ci yenn parce que bu fekkee ni nit ki dañ koy interpréter le rôle ngeen gis ni carrément kii rôle bi ngeen ko jox bon sénégalais yi seetaan dafa tuñu parce que xam nañ ku baax a baax kii interpréter rôle bi ba xam waa ji mi ngi ci powu acteur bi wala nekkul ci powu acteur bi tey est-ce que tamit jotul yeen ngeen ngeen xolaat affaire yi tegaat ko ci yoon ba tey ku nekk mën ci jariñu waaw noo xam nga teg ci yoon bi mi ngi dépendre ci acteurs yi ko séq parce que responsabilité casting euh, sa ça relève du soit du directeur de casting réalisateur ou du ñooñu ko séq ñoom ñoo war a lal liggéey bi ci dëgg mais mu bañ a nekk par parloo ba képp ñuy jël mais ñu testé la ba xam ne yow vraiment tu tu tu réponds au profil euh, par rapport ak say prédisposition par rapport ak sa capacité ou bien ton expérience waaye nag bu ma xoolee ne yow suma mbokk nga wala da ma neex wala rafet nga wala dafa am ku ma la recommandé ma rusee la ko ah, xam nga loolu dafay nekk loo xam ne dëgguwul te loolu liggéey bi laaju loolu parce que aar nag du fen qui interprétait avec vraiment exactitude et précision ça se sent tout de suite parce que loolu mënul nax bët mënul nax nopp parce que léegi Sénégal nous sommes euh, presque tous des téléphiles avertis hein, ou des cinéphiles en tout cas attentifs a telle enseigne que ñu ñi deful métier bi boo defee liggéey bu rafet dañ koy daal di xam léegi léegi parce que gis nañ les critiques maintenant qui se font à travers les réseaux sociaux eh bien boo defee lu jaadu dañ koy wax dañ koy xam et dañ koy reconnaître ba tax na nit ki yow li ngay dugg daal euh, na fekk nga mën ko wala boog nga am ku la ci ku la ci tàggat bon loolu moo tax man ku mel ni man ñu may jël pour coacher des acteurs c'est pour leur permettre bon en tout cas de de d'essayer d'interpréter au mieux les rôles qui leur sont confiés wala ñu jox ma direction artistique comme dans euh, Gloire eh bien mu doon loo xam ne yow da ngay veiller à ce que hein, euh, artistiquement les choses soient faites dans les règles de l'art voilà. Euh, tonton ñu gis la yaa ngi wax sa carrière fi nga débuté mais est-ce que tonton seen am na loo xamante ni euh, sidément apporté na ko maanaam gañe na ay trophée ou bien ay titres yoo xamante ni tey jii ci ci aar lañ ko ko joxe waaw euh, bi ci jiitu te ëppal ma solo bon c'est la reconnaissance de la communauté wax dëgg yàlla man euh, saabu nag du fóot boppam mais muy Sénégal bi ci bitim réew képp ku ma janool wala ma jànkonteeg yow wala ñu am communication à travers les réseaux sociaux. Eh, yaa ngi rafetlu suma liggéey di ma ci gërëm di ma ci sant eh, dem nañ ba am na sax ñoo xam ne dañ may bindal ay poème eh, mbedd mi foo génn nit ñi dogaale la tàll la loxo bégee la mais également di di bëgg sax photo ak yow partout damay dem sax ba man des fois pour génn dox ci mbedd mi day xaw a diis ci man looloo waral mënuma dox ak tànk je suis obligé partout de prendre des taxis et puis ma sonn ci mu metti ma lool parce que nag ñu mel ni ñun xam nga yàlla mën a waroon na def tey jii ñu am suñu oto ah bu ñuy mën a doxee di ko waxee mais bon art bi nag euh, il faut dire que euh, en Afrique en général pour ne pas dire au Sénégal en particulier bon on on est on est on n'est pas bien payé l'art ne nourrit pas son homme en tout cas jusqu'à présent bien que nag tane na parce que boo xool si jamono njëlbeen ñun ci euh, ndoorteel jamonoy tey maa ngi rappelé wu pay gi demeewul woon noonu dañ la neexal la woon rek dañu daan neexal donc bu jamono di dox ba fu nit soxla tonton seen tey ji boo ko woowee mais avant ngay wax dara tu signes avec lui un contrat avant même nga koy déplacer te déplacement boo ko defloo eh bien tu le prends en charge donc loolu mën naa ne avancé la sant yàlla bon idole également bi ma bokk eh, bokk ci ñi nga xam ne nekk nañu sooklu idole waa jàppale nañu euh, maanaam production bi euh, ci wàllu seen taxawaay mais itam ci wàllu jàppale ñi nga xam ne ñoom laa ko séqal mu nekk ay acteur des jeunes et des moins jeunes n'est-ce pas que j'ai toujours eu à épauler n'est-ce pas et à donner des conseils nest pas dans le cadre donc de leur interprétation euh, loolu it euh, gërëmee nañ ma ko sant ma ko euh, ñu di ko rafetlu aussi te xam ne loolu moom moo ñu war nit li la yàlla baaxee nga am ko as tuut ci expérience dans la vie eh, war nga ko mën a bokk ak doomu aadama yi jàppale leen ci ci ni ko mëne mais idole également année yi nga xam ne yëpp am na fi ay trophée Sénégal yu ñu doon joxe sur pour euh, la la meilleure euh, série sénégalaise Idole moo ko remporté donc loolu rek euh, loolu ndam la sag la te itam ñi di ko rafetlu donc bu loolu weesoo aussi bon j'ai la reconnaissance de tous les partenaires hein, des partenaires au niveau de la santé notamment euh, le, le, le ministère pour ne pas dire donc la région médicale de Dakar le centre de santé de Grand Dakar le district centre Gaspard Camara ñooñu ñëpp euh, ndeysaan dañu ma dañu ma dañu ma jàpp jàpp bu dëgër parce que dañu nekk suma ay partenaires yu may liggéeyal de tout le temps mais à tout moment vraiment ñi may former euh, di ma décorer di ma boole ci seen i programme mais également euh, mu nekk ay programme yoo xam ne aussi bon maanaam mën naa ne liggéey la parce que ay contrat la yu may jëflante ak ñoom ñu di ko honorer comme il faut Euh, donc euh, maanaam loolu yëpp xam nga bu la ko sa métier maye et eh, sama taxawaayu délégué de quartier bi ma am mën naa ne yombalal na ma ci lu bari euh, parce que xam nga nit ki bu fekkente nit ñi dañ lay ndamoo def la royukaay wan la seen cofeel di la ko wax saa su ne donc pour nga mën fa nekk délégué de quartier xam nga dafay yomb dafay neex moo tax vraiment yombal nañ ma ko donc maay sant di gërëm askan wi yëpp bon ci cofeel bi ñu am compréhension bi ñu am rus gi ba tax na tey jii euh, sonnewu ma fi dara daal même ñaari nit sax yu am jafe-jafe bu ma ñëwee di leen arrangé bu ñu ma xasee gis ba ma toog rek ndeysaan tension yi dafay wàcc euh, te itam euh, jubóole gi day mën a yomb ci man te itam képp ku fi xewle bu ma fa teewee eh, eh bien également koy def ndam danga koy sago donc maam jàmm aussi avec toutes les associations de Grand Dakar parce que man je suis un acteur communautaire je suis président d'association bu ñuy wax Sigui Club de Grand Dakar mu nekk ci cadre mouvement associatif bu Grand Dakar ma nekk leader euh, ci seen biir wax dëgg yàlla ñoom it lu rafet la ñuy jëflante di ko liggéey nag ci wàllu gu ci wàllu santé ci wàllu éducation euh, ci wàllu culture particulièrement ci wàllu sport en fait dans toutes les euh, activités de la vie et tonton seen impliqué wu na ci à travers son engagement communautaire son engagement culturel mais son engagement patriotique tout court Euh, ñu gis la nga dégg sànq sa biir wax nga ni am nga am nga reconnaissance ministère de la santé en tant acteur culturel ci jamono bi nga xamante ni moom lañ toll mbas bi sonal sonal àdduna plus particulièrement ici au Sénégal ñu gis ni deuxième vague bi metti na lool et que ni euh, ñi si ñàkk seen bakkan bari na en tant que acteur tey lan ngay wax sénégalais yi euh, ci ci li nga xamante ni moo di mbas mi. mbas mi li may wax sénégalais yi mooy ah nguur gi de mi ngi jéem li mu mën ndax def na fi ay programme yu bari. Euh, ci wàllu dimbale askan gi ci wàllu itam euh, di waxtaan ak ñoom di jokkoo ñoom saa su ne euh, ci anam yëpp muy ci télévision yi ci rajo yi à travers des caravanes à travers des programmes de santé pour nit ñi am conscience ci ne mbas mi lu am la waaye itam di leen digal ne leen mais da leen respecter les gestes barrières c'est-à-dire da leen sol masque da raxas seen loxo ak saabu boo leen di génn ak boo leen duggee seen biir kër mais également di leen utiliser gel donc Euh, hydroalcoolisé bi nga xam ne bon dafay rey microbe bi mais également di digal nit ñi ne leen éviter leen ay dajaloo mbooloo éviter leen di organiser ay xew éviter leen lépp loo xamante ne lii eh, dana mën a euh, indi daal ñàkk dandante bi donc loolu lu am solo la may wax askan bi ne leen e nañu topp digle yooyu puisque ah, actuellement amuñu garabam même vaccin yi ñuy wax gisuñu ko fi lenn rek moo ñu mën a musal moo ñuy respecter les gestes barrières man mii di wax ak yow nii tey jii programme yi ministère bi taxawal yëpp n'est-ce pas par le biais du district centre Gaspard Camara le centre de santé de Grand Dakar man dama ciy impliqué personnellement en tant que membre actif parce que je suis relais euh, de prévention sanitaire donc programme bu ci am maa ngi ci ak ñoom sur le terrain n'est-ce pas pour def ay ay rencontre pour def ay causeries assister ci ay formation ba jamono bii ñu toll nii am na benn département bu ñuy wax CODEX bu nekk ministère de la santé ñoom Euh, dañu bëgg tëral benn programme bu ñuy wax marché santé loolu nag euh, ci Sénégal yëpp ñu tànn ci Grand Dakar cest à di ci commune bii ma nekk pour euh, expérimenter ko programme boobu lan lay wundu mooy fexe ba marché mi nga xam ne lépp lu waay di lekk moom lay jëfandikoo ci lekk ca marché boobu lañ koy jaayee fa lay jóge ba àgg ci biiru nit ki ñu ne loolu nañ ci def nañ ci ànd ak waa CODEX ak euh, les associations de consommateurs mais avec les délégués de quartier les bàjjenu gox les relais communautaires pour que ñu bokk ànd euh, fexe ba askan woowu ñu waxtaan ak ñoom ba marché bi lépp loo xam ne euh, lekk la bu ñuy jaay ñu yor ko ci anam yu rafet anam yu yiw anam yu sell te set fexe ba itam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di dugg si marché bi di jënd si et ñu ràññee loolu di ko jëfee waaye itam bu ñu ko jëlee di ko jëfandikoo ci anam yoo xam ne yu sell lay doon euh, yu yu yu set ci dencin bi waaye itam ak ci toggin bi ndax lekk dafa am nu ñu koy dencee lekk dafa am nuñ koy maanaam yoree waaye itam lekk dafa am nuñ koy toggee ba benn bañ la ci gaañ moo xam yi nga xam ne eh, yu ñu togg la moo xam yi nga xam ne aussi dañ koy baxal waaye moo xam ne ici dañ koy lekkee noonu lépp lu ci ne rek am na ci anam yoo xam ne war nga ko mën a jëfandikoo euh, di nga am ci kaw set ci kaw sell ba nga xam ne diggante ba nga koy jëndee ba nga koy indee sa kër ba nga koy dencee ba ba nga koy jëfandikoo et eh, mën na laa bañ a gaañ ci kaw nga respecter les mesures d'hygiène qui constituent donc les cinq recommandations de l'OMS ñoo ñu ngi liggéey actuellement ci wàll googu fii ci Grand Dakar te bokk naa ci acteurs yi gën a déterminant yi nga xam ne en tout cas codex par le biais du ministère de la santé et impliqué nañu ci liggéey boobu ci wàllu Covid 19. ñu gis ni maison de production yi bari nañ lool série yi bari nañ am na yu ci am qualité am na ci yoo xamante ni amul qualité en tant que acteur culturel tey lan ngay wax maison de production yi ak acteurs yi nga xamante ni wala jeune yi nga xamante ni bëgg nañ siiw ba mu jaral leen tey ñu dem dugg ci production boo xamante ni amul continuité wala par exemple nga gis ñu def casting. def seen i def bind seen i scénario def tournée teaser affaire bi teaser bi génn ñu dem ba jëmmi jamono duñ duñ ci amaat benn benn benn benn info boo xamante ni par rapport ak série boobu wala par rapport ak production boobu ñu xamante ni moom la moom la la ñu woon acteur bi. bon loolu euh, li may tàmbali ci tontu yi mooy euh, yow est-ce que di nga lekk togg gu ñorul hein est-ce que di nga di nga bëgg di lekk togg gu neexul. walaa gis nga mbir mi loolu la rek c'est aussi simple que gis nga production dafa laaj ay moyens yu takku moyens yu takk yooyu boo demee ba ci bëgg a dugg dangay fexe ba nga dajale ko ba mu mat moo xam ci sa poste lay jóge moo xam da ngay solliciter ay partenaires waaye nga am lu mate ba mën a am matériel technique de de pointe boo xam ne boo ci tourné di nga am image yi nga xam ne yooyu lañ soxla benn e ñaareel ba e nga dénk ko nag ñoo xam ne attan nañ ko te mën nañ ko vraiment booy def sa casting nga bari ci def nga ci def parparloo nga tànn ñi nga xam ne testé nga leen ñu conforme par rapport ak li ngay wut ci profil yi nga soxla ñaareel ba mais ñetteel ba aussi et yow booy confier liggéey ba bon à des techniciens yu ko war a réaliser hein comme à des à des à des à des à des metteurs en scène ou directeurs mais nga jox ko ñu mën seen liggéey parce que gis nga liggéey boo teg ci yoon nga jox ko ña ko war a jox ñu am di nga am euh, xam-xam ba ca ak moyens yi tamit mat mais kooku forcément dangay def produit bu baax da ngay def sa chef d'œuvre laay wax te loolu ñun am nañ ci exemple mais nañu xool les grandes productions yi ñuy def dans l'Occident c'est des productions qui réussissent où tu vois que chaque rôle est interprété à la perfection il des images euh, vraiment euh, belles et ya y a, il une bonne promotion aussi du produit ba nga xam ne produit bu ñu ko defee dina wër àddina yëpp dinañ ko déglu seetaan ko euh, ci ci ci ci tubaab Euh, déglu ko seetaan ko ci anglais déglu ko seetaan ko ci espagnol italien allemand et cetera et cetera cetera gis nga nag liggéey boobu noonu la bindoo bu fekkente da nga ko bëgg a def dans le cadre du d'une industrie euh, d'une industrie culturelle euh, de pointe et qui va avec l'actualité du moment donc mbir mi c'est aussi simple que ça gis nga yow boo dee ba ci dugg paramètres yooyu da ngay fexe nga tegu ci donte na sax xëy na mën nga bañ a matale lépp waaye nga awale ko ci yoon woowu maanaam lépp loo ciy def mu bañ a doon ci yàkkamti mu bañ a doon ci përëx-përëx mais mu bañ a doon aussi ci par parparloo wala mu bañ doon tout simplement ci ndax sa bopp donc nit ki moom am na loo xam ne boo koy def eh, di nga xam ne sa bopp kese ngay ndax mais ndaxoo kenn question bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee tonton seen maanaam mooy jeune talent ñu fi gis dañuy def euh, tey par exemple benn pub wala ñu génn ci benn série yaakaar ni ñoom fi mu toll nii ñoo nekk au sommet tey la nouvelle génération lan nga leen wax parce que ñu ci bari dañu yëg succès maanaam dañuy feeñ benn yoon ñaar yoon dootuñ duggati ci car rapide yi wala dootuñ par exemple bu leen nit ñi di woow pour photo ak ñoom sax dañ leen di daw wala pour nga gis leen pour inviter leen sax ci émission day metti ci day metti ci nga xamante ni ñoo di borom télé yi wala ñi nga xamante ni ñoo di euh, les web TV. ah non non loolu moom ak réer rek laa ko jàppee ak teg sa bopp foo àggul ndax nit moom loo bëri la bëri gis ku la ëppale loo am am am am xam euh, gis ku la mën a may. Euh, loo rafet rafet rafet gis ku la dàq ba tax ni nit euh, wàccee sa bopp rek moo la war te dañuy wax ne nit boo wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la ñooñu dañu réer ma leen di digal ne nañu delloo seen bopp suñu borom xam ne àddina du dara fii kenn dëkku fii euh, c'est un grand théâtre où chacun joue son rôle et disparaît et nit kii danga war a jéem a fexe avoir un beau rôle dans tout cela rôle bi jarul muy mag waaye rôle bi na rafet ba pàtte fàttaliku ba ñoŋ loolu moo am solo ci àddina euh, parce que euh, rëy-rëylu euh, def ko ci àddina yaakaar naa ne man ñàkk expérience la wala ñàkk xel wala ñàkk xam àddina voilà parce que gis nga lu dul dëgg rek du yàgg ñun gis nañu de grands acteurs hein au Sénégal mais comme à l'étranger dañuy dem ba màgget seen expérience di gën a yokk ñu leen di gën a soxla ñuy gën a am aura lu ñu def ñu ne gongo te loolu nag pour nga am ko mais wàcce sa bopp rek koy maye quoi tonton Sène le de la fin parce que l'émission tire à sa fin. Euh, de la fin bi bon dama leen di gërëm d' abord yéen ah, au niveau de Equivox vraiment sëñ Saliou mm-hmm. ah yow sama sëriñ bi bu ma fàttee ñaanal mais kontaan ci yow lu bari euh, kontaan aussi ci moodu vraiment ndax gis naa tey bi dal gi mm-hmm. et puis ak euh, euh, ni muy manipuler dégg nga maam instrument bi waa gis naa ne il le fait avec conscience et te loolu rek moom moo am solo gis nga li may jeexale mooy maa ngi sant di gërëm Sénégal yëpp eh, di ko tàmbalee ci kilifa gi eh, di Macky Sall eh, di nuyu itam kilifa diine yi di nga am ci tarixa bu ne mais également di nuyu askan wi yëpp rawatina chef de quartier yi ci Sénégal yëpp mais également di nuyu képp kuy acteur santé au niveau du Sénégal mais di nuyu aussi benn programme bu ñuy wax 33 Damel ñoo xam ne ñoom dañuy yëngu ci wàllu cosaan ak aada bu ñuy bëgg a gëstu ci Sénégal ngir gën a yokk da am yee askan wi ci seen démb ak tey nest pas mu nekk liggéey bu am solo bu am maanaa ma leen di wax ca kaw ca kanam on est toujours ensemble di remercier également les acteurs culturels du Sénégal donc di ko jaarale ci euh, le mouvement reçu parce que reçu mouvement la boo xam ne aussi dafay fexe di jéem a dajale képp kuy acteur culturel ci Sénégal ak ci bitim réew kuy doomu Sénégal donc euh, parce ce biais donc laay jaaree pour sant ñëpp gërëm ñëpp wax leen ne eh ñun de taalibe bu xeebalu rek eh, fortaatu as tuut ci xam-xam eh, am yéene nag am yaakaar et eh, séddoo ko ak suñu réew nest pas ngir jëmmal suñu cosaan ak aada fii ci Sénégal ak ci bitim réew te yàlla mi ngi tàggat di ñu gunge ci yoon woowu ba ah jërëjëf rek lañ ciy dégg donc yàlla na yàlla euh, rafetal lépp yàlla na yàlla yokk ñëpp yàlla na yàlla yëkkati ñëpp te dimbali ñu ci mbas mi. Euh, ba ñu mucc ci ñun ñii ñëpp da nga xam ñi nga xam ne dese dañ suñu bakkan ñi ci gaañu yëpp yal na yàlla seeral suuf seen kaw te may seen mbokk euh, da nga am xolu muñ di sant di gërëm nag suma waa kër yëpp wax dëgg yàlla mon épouse hein Mimi mes sœurs Aïssatou Fall l'adjointe au maire qui nous a permis vraiment euh, qui nous a bien reçu hein di gërëm Abdou Khader Fall qui est le bras droit de Ahmadou Mbacké Faye le représentant des Mourides à Dakar Abdou Khader di suma rakk bu baax ak aw Fall aw Fall mi nga xam ne moom eh, mi ngi fii suma sœur bu nekk États-Unis ma di ko gërëm di ko wax bon séjour et bon retour également ak euh, mbokk yeeg xarit yi dëkkandoo yi vraiment ñëpp di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm jërëjëf Equivox jërëjëf Equivox ca kaw ca waaye xulee eh, tey fi ma génn fii dafa am sama benn xarit bu nekk eh, ca diwaanu Colobane muy eh, borom Touba Taïf Shop kooku moo di Pape Gueye moo génn ak man fii kooku doomu ndeyu xulle la moo du xulle sama caméraman bi nee naa la Pape Gueye boo ko bëggee jot ma ngi ci diwaanu Colobane da ngay def le 77 671 29 25 77 200 44 57 69 Pape Gueye mi ngi ci diwaanu marché Colobane nee naa la ay bagage yu baax lay jaay te original lay jaay moom a génn fii ne ma Abdou Saliou taalibe Serigne Saliou fort di sañse waaye tonto seen réew mi am na ñu baax am na ñoo xamante ni def lu baax moo leen tax a jóg ah tonto seen kontaan naa ci yow di ñaan yàlla succès bi gën a yokku suñu borom gën laa tax gën laa kàttanal gën laa dolli doole ba yéene bi nga xamante ni am nga ko ci cinéma am nga ko ci théâtre suñu borom mottali ko tonton Sène merci beaucoup yéen acteur culturel yi xaar leen ma yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci milieu showbiz bi xaar leen ma incha allahu rabbi ñi ngi ñëw ni ma def ak tonton Sène laay defak ak yéen te incha allah waxtaan bi dina gën a neex moo du xulee jaajëf